dal no Wally sekk ñëw na tey. tey la ñëw waaw donc kañ ngeen di reprendre encore. non dimanche bi incha allah dinañ tëgg. dimanche ngeen di reprendre Vogue. bon c'est vrai sans yi c'est pas facile mais Mbaye si dañuy wax ci leneen muy loo xam ne xew na fi récemment ñu gis euh, Bercy wu jabaat Diabaté ñu invité Wally Seck en tant que tamit un grand nom moom Wally Seck bi mu fa demee gis nañu li fa xew pratiquement dañ ne sax dafa nangu Bercy jàmbur quand même. ci succès mais aussi ci buzz ngeen am ay rapport yu bien ak ki nga xamante ne bi mooy Sidiki Diabaté mais après coow li ah polémique bi way kam fa dajeel di Diop donc nga gis bu Boucher Ketchup taxawaay bi mu ci euh, taxaw ñu bëri ak ñaaxarañ loo mu nekk loo xamante ne bi juxoon na polémique quand même mu soo wax lu ñaaw mais boo dee jàngat quand même Wally Seck ni mu fa demee ak vraiment yenn détracteur Wally Seck yi mbay si lan mooy doon sa analyse par rapport tout ça waaw ci li may wax mooy. Mhm. Mm, ci diggante Sidiki ak Waly. ci ngay wax. waaw parce que Sidiki ak Waly du tey. Mhm. date bu yàgg la wax dëgg yàlla. Sidiki nekk doomu artiste papaam def lu ne ci musique africain. Mhm. Euh, Waly tamit noonu. bañ nañ ko ba ba ñu ànd seen morceau dañ ni Waly héritier. si mm-hmm. Sidiki héritier. Mm-hmm. ñoom ñaar ñoom ñaar ñu comprendre parce que Mali tey Wally Seck moo fay euh, Sidiki moo fay seen Wally Seck. moo fay Wally Seck xam nga Sénégal fii tey gis nga Wally sekk ni mu fi mel. dëgg la mm-hmm. donc ñu way nii en avant avancé. Wally laisse les parler xam nga en avant en avant euh, kii avancé euh, Sidiki laisse les parler. parce que ñoom comprendre nañu. donc loolu ku ci nekk ci ñoom yaa ngi fexe ba liggéey ci sa dëkk ba tey li nga xamante ni moo fay nekk ci wàllum drapeau ñu koy woowee flambeau nga jéem a fighting pour yor ko parce que nekk doomu artiste rek doyul mais dafa laaj liggéey dafa laaj maanaam rigueur dafa laaj comprendre ñoom ñaar nag comprendre nañ ba ku ci nekk jox na sa moroom respect. d'accord Sidiki di def bersiam def Wally Seck invité d'honneur mhm. donc la fa xew lépp. bi ñu gisee xam na ni waali mi du dañ ko woo rek mu ñëw ndax dañ ko xàllal pour mu si loolu nag yaakaar naa ni ku mu doyul dara dootu la doy beneen bi ñu wax ci sunu si di Diop nekk ndaanaan tamit nekk xale am jom trop moo ko indi fii parce que nag magul ci réew mi mais tey doo tudd ñaari woykat te tuddoo di Diop donc loolu cër la bu mu am ci réew mi yàlla suñu borom defal ko ko ku bëgg ak ku bañ man du wax lu ñaaw. Mhm. tey du nekk ci Wally Seck tax may wax Sidi kii dara Sidi Diop dara lu ñaaw. parce que mhm. xam naa ni fi mu nekk nii bu nekkoon yambar wala mu nekk yaafuus du egg ci fii mu nekk tey fexe na ba tey bu ne Wally sekk dina ni Sidi Diop. mais gisoon dañ koy dóor ci kaw magam si euh, Wally. waaw xam nga loolu soo bis la rek. ñi xamul ñoo xamul mais man sama image ci Sidi Diop ba mu ñuy fekk studio di mel ci Wally ni mu mel ci moom sama image ci euh, première anniversaire u Benjamin Wally Seck egsi ni Sidi Diop mooy way pour mu mën a dugg si image yooyu du réer ñi xamul rek ñoo xamul mais tey ba ci Boucher Ketchup mbëggeel gu ëpp ci nit dafa doy waar. ah bon Boucher. Boucher ku mu wax ci réew mi ni la yow laa bëgg ku dul Wally sekk waxula la lu am. ah bien sûr. Mbaye li nga wax garaaw na de. non wax nga révélation de. waaw non dama ni man li may wax nii dama ko xam maîtriser ko bu baax. Boucher bi muy dem Amérique sama mag Serigne Mor Ndiaye moo ko defaral ay kay mu demee Amérique. Serigne moor Ndiaye. promoteur maa ngi koy nuyu waale. sama sama xarit la xam naa ko. Boucher nekk sama frère. Mhm. tey dinaa leen wax tey lu lu loo xamante ni àdduna ku ko dégg di nga comprendre bu wér. musuma ko wax nag mais tey dinaa ko joxe tey fii ci Feeling Dakar. sëñ Mor yow ak moom loo leen bokk. sëñ Mor ñoo bokk ndey ak baay. moo sama mag nekk Amérique. moo defaral Boucher ay kayitam. moo ko defaral ay kayitam Boucher ñëw ànd ak guy gi. d'accord ñëw fekk ñu Amérique ñun. Mhm. buuse jabaram bi ko may këyit mhm. américaine bi ci boppam. américaine la mais buy topp ci way Waly Seck da yaakaar ni kii dafa dégg olof. day topp ci wayu waale yi comme A ak Z buuse mi ngi may seetaan te ma déglu. te wax dëgg yàlla lu amul seetlu lu ne baaxul. dëgg tey moom xam na ni li ñuy waxtaan lépp man ak moom tey bu ma bëggoon lu bon wala ma xam lu bon ci téléphone ci lañ doon waxtaanee muy nekk ay audio lépp ba tey jii mi ngi sama téléphone mais man xaw ma lu bon du ma wax lu bon cofeelam ci Wally Ballago Seck man xam naa ko. jabaram bëgg Wally moom it mu bëgg Wally bu se dama daan woo. uniquement pour wayal ma duute mbaay loo reere bi gimbata ca kenn gées mi ngi may seetaan xam di enjoy Wally Seck yàlla suñu borom dogal ñu fekk ko Amérique mu ñëw savourer soirée am fecci ak ñun ñu kafooree xam nga mu ñëw Sénégal bi mu ñëwee Sénégal première soirée am mu ñëw penc mi penc mi fa la lépp xewee buuse bi muy ñëw surprise la ñu defal waxul ñi maa ngi ñëw d'accord dafa ñëw penc mi dafa amoon ñaari port mhm. port bi mooy porte artiste am beneen boo xamante ni moo nekkoon ca boolu toilette yi. d'accord Boucher ñëw jaar ca boolu toilette yi tëb ñun sax dañoo tiit parce que foofu kenn daaw fa jaar Boucher tëb rek siif waali tiit. ok xàmmewu ko ni ko sawaay seenu jàmbur kenn du ci yéegee nii boo yëg ci seen da ngay yëglu. ok xamalax mais comme y avait nit ñi yaa ngi filmé ak yooyu te moom it am na gan yu mu àndal. loolu frustré ko bi soirée bi jeexee man la woo cinq di du matin ndax ñoo mbay si Ndiaye Wally Seck daf maa toroxal ma ne ko non Wally toroxalul la parce que ki ngay toroxal da koy xam. Hmm. mais Wally xàmmeewu la. parce que yow waa Wally bi mu waxee loolu nee naa ko Wally kii mooy biisu këccëb mun munuma non yow yaa defar mais Wally li mu def ma ne ko non parce que li mu def day wan keneen pour beneen yoon parce que tamit foog mu donner un bon exemple parce que tey bu la bàyyee yow nga jaar foofu dina jaar foofu. mais loolu frustré ko. léegi nag il fallait que mu jéem a basé wu ci loolu tax mu de forcé pour yeneen artistes gëmloo li leen que ni daf leen bëgg mais bëggu leen parce que lenn li boo xoolee Boucher sax di nga xam ni lii du rek bëgg artiste parce que tey boo bëggee artiste sa artiste boo ko bëggee rek yem ci moom doo wax ki keneen lu ñaaw mais revanche am lay jël nii mer boobu la jàpp mais man leer na ma ni ma ak kafe gi may ñaan billaahi wallaahi taalaahi Boucher ku mu ni moom la bëgg ku dul Wally Seck waxu loolu Wally rek la bëgg mais nag xaj na nit ku nekk tey amaana li mu am ci yeneen artiste mhm. tey bu ko amoon ci Wally Seck mhm. du demee nii moom sama frère la ba tey jii dañuy dëggante mais moom xam na sax ni dafay déconné te am na loo xamante ni dara jaru ko fi moom xam na nag man xam naa mais public bi muy jéem a tuur lëndam te dafa am loo xamante ni tey Boucher tey ñu bari ñu ngi koy contrôle ci diggante mag Wally te loolu dara jaru ko fi te man xam naa fi mu toll ci Wally Seck ma wax la nag benn secret tey. Mhm. Sénégal ñi ñu foog ni dañoo bañ Wally ñëpp. Mhm. mooy ñi gën a bëgg Wally mais nag dañoo am seen réglement de compte ak Wally soit que maa ngi koy woo jotuma ko wala dama ko tëgguloo tëggul wa ilaa bëggoon naa ko gis gisuma ko nga bëgg a jël benn engagement bi nii tey foog ma basé wu léegi foog ma xool beneen adversaire boo xamante ni ñoom ñaar ñooy xaw a jàmmaloo ma dem ci kooku gëm loo ko ni ko yow laa gëm yow laa bëgg mais billahi wallahi taalahi ñoom ñëpp Wally Seck lañ bëgg. d'accord alors euh, précision de taille la quand même venant de euh, Mbaye Sy Ndiaye ku ne xam na ko ci dëggoom du waxantu euh, c'est vrai que euh, li tax tey ma choisir ko ngir wax loo ko ci lii. xam naa ne bu ci waxee coow li quand dafay dafay laay parce que li mu ci maîtriser nag laa kulaal euh, kenn maîtriser wu ko ci moom Mbaye Sy Ndiaye Mbacke dañuy jàll ci euh, leneen parce que page boobu euh, un peu li ma la ci bëgg laa jaar rek mooy est-ce que quand nee nga Boucher ba tey yéen a ngi déggante ba tey euh, yéen a ngi entretenir des relation yu nice ba nii nii nii parce que gis naa ko quand même moog Lil Pro moom ñu ngi cool. non dama ni biiso Boucher Lil Pro mi mu xam ak Fallou Benjamin mi mu xam ak ñoom ñëpp maa leen ko présenté. d'accord Boucher man la miin man la xam. parce que. Euh, guy gi ñu koy wax Saer Seck. dañoo defandoo lu bari man ak moom. moom mu bëgg euh, euh, guy gi. tafu ko nekk adjoint bu guy gi ba bi muy dem buusee ñoom ñaar ñooy yendu ñooy fanaan nekkandoo ay seex ñoom ñaar xam nga xaj na sax am na yu bari yoo xamante ni kenn mënu ko wax ci ay émission mais moom xam na man xam naa mais tamit dafa am loo xamante ni. moom ki mu koy def dafa am waajur comme moom ni mu amee waajur. te gis naa ko moom jàmbaar la. Mm-hmm. parce que tamit fekke naa fexe na ba jóge ci zero Boucher macha allah deful Amérique cinq ans am kayit kon loolu liggéeyu ndey la xam nga te fexe naa tamit ba jabaram tey mu ñëw takk ko sagal ko di fexe ba muy tukki di dem ak ñëw. Mm-hmm. kon jàmbaar la ëlbatiku nekk taalibi Serigne Touba. mais dafa am yoo xamante ni trop c'est trop. rafetul waaw rafetul mu ñaaw quoi. parce que tey nga dem ci concert ñu ngi naan waali waali nga naan mali mali dafa am yoo xamante ni après dalay lay indil ay noon te ëllëg si bi kenn xamul kan mooy kan ak lan mooy lan. te wax dëgg yàlla bànneex dafay am naqar dafay am boo bañee ñëw ci ci naqar di gênaw wala ngay am kersa. Hmm. dafa am yeneen comportement man de wax dëgg yàlla waali sekk sama frère la. Hmm. ma nekk ci moom di ko jouer mu nekk sama mbokk mais du tax ma xas Pape Diouf du ma xas di Diop du ma xas xas kenn. parce que ñooñu ñëpp samay nawle lañ. man rus naa wax ci sama morom artiste loo xamante ni ñaaw na. parce que nag maanaam internet gii. Mhm. ku ci bañ ñu vaar la di nga dem tey ba nekk mag. sa njaboot di la seetaan di comprendre tey tey jii ëllëg yàlla mën na dogal njabootu Boucher dem ba dugg ci njabootu keneen ak keneen ak keneen ak keneen wala njabootu keneen ak keneen xëy tey ba dugg ci ci wàllu boucher te bu boobaa dafay doy waar dëgg man rek man rek sama téléphone rek li ma ci yor bu ma ko génne léegi tey nit ñi ni non non kii du boucher ah bon ah mais parce que sama nit la ñuy waxtaan ci lu bari di waxtaan whatsapp boucher depuis que mais ñaataat man changé wu ma numéro moom tamit changé wu numéro mais man xaw ma lu bon xaw ma lu ñaaw waxu ci nag lu bon mais cofeelam ci waal ak ni mu mel ci waal yi ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni en tant que frère la moom muy wax may wax kon loolu rafet rek la mën a def. kon budul dara moom na set ci xam ni Wally dafa am njaboot Wally dafa am ay frère am yoo xamante ni moom daf ñoo ñu ay nitam lañ mu leen di sóor tey mënoo bëgg a contre Wally Seck bëgg di dégganteeg Mbaye Sy wala ngay dégganteeg Lil Pro. effectivement lenn li parce que tey am nga droit bëgg sii di Diop. Mhm. am nga droit bëgg Pape Diouf man tey supposons. mën naa bëgg euh, euh, nekk ci Wally ba pare bëgg Pape Diouf parce que Pape Diouf ndaanaan la mais du tax ma xas Wally Seck ma ànd ak Wally Seck tamit du tax ma xas Pape Diouf ku nekk na nga gëm li nga gëm te mi ngi mel ni rek nga nekk ci ci maanaam tarixa bii bëgg a xas tarixa bële munta nekk na ku nekk gëm li nga gëm te ba kenn bañ a xas kenn yàlla sunu borom li muy war a def mi ngi koy def lépp a ngi leer mhm. ku ci ne yaa ngi mos <laughs> xool asamaan la jërul buxante ci beneen polémique laa lay dugalaat de xam naa di nga ne tey moom. Bamba Bamba moom tey fi mu fi mu génn moom. xamee ma nag yow xam naa ni <laughs> yow da nga